sama xarit waaw mi nga xamante ne da ngaa yàgg dental nekk biir dental tey naka ngay dundee li nga xamante ne mooy seen de finale bi waaw duñ ko dundee lu mbégte ak contentement rek ak euh, confiance 100 pour cent amul dara lu ñuy ragal préparé nañ équipe bi ci yëpp côté moralement physiquement pare nañ daal pour dem ñu jël li ñu jox daal ñu xam. jàmbaar odef ngay dajal équipe bu mag ngay dajal boo xamante ne du sax nii. waaw dëggantaan dëggantaan yooyu yëpp daal jaaxaluñ ko waa ay EDF ak keneen ak keneen daal jaaxaluñu yàlla baax na ba suba ak jàmm nañ gisaat leneen lu mel. bëgg wax ci biir match bi ci biir match bi lii amul xalaat amul leneen. waaw def moom dina may dara bu la dóoree tubaab dara da lay may at ndam. ñaanu ma ko ñaanu ma ko dara lu mu am jël lu mu am na ko téye ñaanu ma ko dara. te man li ma yor da koy jël par force mënu si dara. yow loo yor ba mu koy jël. mooy ndam rek ndam rek soxla mu leneen lu dul ndam rek. ndam rek nga soxla. ndam rek waaw. mais waa ji may gis mooy ambassadeur d' non violence. kii xaalis beeg xom xoma xonjam lañ koy wax lan lépp kii moo koy ambassadeur baa ngi nii maa fay. maa yaa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. mais nag da ngaa demati sax laay wax da ngaa demati. quart waaw waaw loolu am na. mais nag sa carré final fa nga yem tey lan ngay wax say supporter ak ñi nga xamante ne nii ñoom ngay dajal muy ODEF tey loolu nga leen di wax tey. salaamaaleykum gars yi maa ngi leen nuyu ah di nuyu waa site bi di leen nuyu yéen ñëpp daal di leen wàcce seen wàcce waay ah di leen wax nag ren. dëgg la nee nga fa laa daaneem mais ren ñaan naa yàlla romb ko di dem ba romb départemental di wéy ndax ñun ñëpp ay jaam lañ kenn ku nekk tam ñaan nga am kon ñun man la may ñaan boog mooy romb fii tey ba ci kàttanu yàlla ma indi pot bi fii ci koñ bi ñëpp xam ne daal ren jóg naa incha allah te ren noonu la nga bëgg a doxale noonu daal laa ko bëgg incha allah foo ko teg fu nga ko teg ci ñi man man dem naa boo def man dirigeant lu leer nañ la ma wax nee ma dental bu ma ko jàppee ci première minute dañuy tàggalikoo man ak moom man xaw ma def dental laa xam ah man daal ñoom ñoo ma yóbbante te ñëw naa wax leen xaw ma def dental laa xam nee ma ci première minute yi lépp dina leer ah ki ki mën yal ak ki mën yal na la yàlla may ki dàq fubal ci match bi waaw wala ñuy yem ndax supporters yi ñoo ma joxoon Ahmed Ahmed Faye la non Ahmed lañ ma yi ñoo ma dama bëgg rawal ma ci Ahmed Faye mu wax ñu luy tax suñu xel supporters yi ñoo ma yóbbante nag waaw Taga fay la bu a baax waaw naka li nga xamante ne nii mooy quart de bi nga war a fubal suba noo koy dundee ak sa équipe. waaw ah, waaw sant yàlla rek parce que lii moom boo xoolee liggéeyu mbooloo la rek aussi tamit muy wàllu koñ bi yëpp aussi tamit supporter joueur suñu yaayee suñu waajur yëpp. parce que ñoom ñoo ñu jàppale aussi tamit pour yegg sa aussi tamit kon loolu tamit sant yàlla la aussi tamit parce que suñu yeneen moroom équipe aussi tamit ñu ngi woon bokk si aussi tamit yàlla def na ñu toog mais boo xoolee tournoi bi huit équipes moo des yàlla boole na ci huit yi des. yàlla def na suba la ñuy joŋante aussi tamit euh, quart de finale yi waaw lépp tamit ñu sant yàlla rek di ñaan yàlla aussi tamit bu suba yàlla yàlla may ndam bu sedd guy aussi tamit kom dental lu ñu ko xamee rek ñëppay ànd booloo aussi tamit dem wuti ji parce que dental loolu la ñu ko xamee booloo nekk benn sans violence aussi tamit ñu loolu la ñu xamee ñëw neexal stade bi feesal stade bi ba mu fees dell ñu ñëw gagné yàlla. mais on équipe bu naqaree gagné la dégg naa. waaw yàlla def na nag euh, moom xamuñu ñun xamuñu ko. waaw moom bu ñu xamee. nga léegi door a daje wala ñu door moo tax mooy seen premier match. li mooy suñu premier dogal tamit door mu toog lañ daje aussi tamit mu doon match boo xam ne tamit di yomb aussi tamit match bu nar a metti lay doon. waaw match bu metti lay doon ñu ñaan yàlla tamit yàlla si yàlla suturaal bu baax a baax a baax aussi tamit may ñu si ndam incha allah si kattanu yàlla. waaw ndam rek nañu am ndam rek incha allah bañ a yegg tiro bii rek incha allah. Ah, ndam maa la ñii ñooy doomu équipe bi xale maa lay nuyu. maa ngi lay fay taga. nga yàgg dental juddoo dental yaroo dental màggee dental ba tey nga màgg di football ci ci biir équipe tey loolu lan la la def. mbégte rek ak contentement di am di fu saa su nekk di football si équipe parce que bu ñuy nekk tout tànk lañ doon seetaan gars yi suñuy grand di dem di football tey ñu dem ba màgg di bokk ak ñenn ñi terrain wala football ak ñoom loolu rek mbégte la. loolu dëgg mbégte la bu ñuy nekk tu tànk ba tey ASC bi lañu yàgg a xam bu ñu demee supporter beneen ASC amuñu sax jotu seetaan ñeneen ñu dul ñii tey ñu ñëw ba sol mooy ay bi loolu kay fierté bu rëy la pour man quoi. mu doon loo xamante ne tey jii bu nekk sa premier événement wala muy quart de finale dental tey loolu lan nga ciy wax ji nga xamante ne nii mooy supporteru dental loo ciy wax coach yi nga xamante ne nii ñoo nekk dental tey loo leen di wax tey loo leen di ñaax. pour coach yi ils sont exceptionnels ñu am gàcce ngaalaama rek lañ di wax ndax waajal nañu comme ni mu waree amuñu seen fay déglu nañ seen i consigne ba tey ñu yegg si fii di ñaan yàlla yàlla na yokk pour suñu supporter ñaaxuñu leen dara lu dul fair play ñu dental duñu ay see bu ndaw ay see bu mag lañ te saa su nekk si fair play rek la ñu xam loolu loolu yàlla na continuer lii rek dafa neex taga lii rek dafa neex nga ñëw sa koñ sa waa koñ di yëngali man c'est c'est la première fois mu nekk mbégte mu nekk mbégte si man. kontaan te billaahi. kon dañ koy continuer. ay amiin waay yàlla na. loolu lay demee noonu la fa doyee. ah maa maa lay ziar. waaw delloo ngay euh, dundee sa li nga xamante ne ni mooy quart de finale bi euh, nga war a football ak ODEF. tey loolu ban jàngat nga si am. non mbégte la rek mbégte ak kontaan quoi. ñun moom comme ni ñu wax rek daf leen satisfait boo xamante ne. wala ku dul atee sax waru waruñ mën a taxaw ak moom quoi parce que tubaab day wax maam il n'y a pas de groupe tey maam luñ liggéey jàpp ñu xaju sa ci kaw atee ñun nag ñun nag lii lañ am lii dafa neex quoi ñun ay doomu dendal lañ ñëpp xam nañ ñun ay gaynde lañ quoi ñun bëgguñu defal bëgguñu dara tey gars yëpp ñooñu tax lii rek dafa neex gars yëpp gunge ñu incha allah ci kàttanu yàlla ñu yàlla def yàlla ma ñu def di leen sant baax baax di